bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah wa maa ngi nuyu nuyu di leen sant di ñaan jàmm di ñaan yàlla sidina Aliou Sakho yàlla xare ko xajana yal na deer naf laayam nañ ko fekk xajana yee ko fay fekk njaboot gi mu fi bàyyi na ci yàlla barke nañ ko sut fan jër wasagam ak barkeem ba góor gu baaxoon la bu ñëwee njaboot bu mën a teral jigéen nga mën a yar njaboot maa ngi koy ñaanal yàlla fa tëdd yan na ko fa yàlla yóbbu ci xajanaa firdawsi yaa koy saraxal yaa koy ñaanal nañ di sax barkeem yàlla wutu ko ci njabootam wutu ko ci am dara jaay yenant bi da sant njaboot gi nag gëm fi baax sant naa muy góor muy jigéen sant naa leen ne yàlla def leen magi barke barke seeni liggéey musal leen ci yàqu yàqule musal leen ci gàtt fan ak dee ga ñaaw musal leen ci lépp li lore dara jaay yaar soolu la góor gu baax la woon bu mën a yore soxnaam mën a yar njabootam soo bokkee moom ay doom dara doo ko defal say doom lépp moo koy def waaw lépp moo koy defal ay doom xale yi moo leen yóbbu ñu jàng ak xale bu dàllam dëggee moo koy jëndal daal moo koy xott liire lépp moo koy defal di ko sant rek di ko ñaan yàlla fa mu tëdd yal na ko fa yàlla yërëm fekk ko ca ne yaa ko faay fekk ñu bokk ko moom yaa ko saraxal yaa koy ñaanal njaboot gi mu fi ba yenn ci yaa teg loxo njaboot genn ci yaa def barke ñu sut kaw fan jël basagam war war barkeem ba a wasagam wax luñ jéem yan lañ ko man bu ne tukki yàlla sàmm leen sàmm seen xalal barke seen liggéey ñu si jàmm fekk ñu ci jàmm ñu si xalal ji bëri ca law ji barke bokk seen i mbokk ci dara jaay yenante bi ñu ne fii di liggéey itam yal na yàlla barke seen liggéey la leen magi barke musal leen ci yàqu yàqule gàtt fan ak deega ñaaw ngir seen baay fan dara jaay yenant bi jigéen ñi sëy yenn yàlla barke seeni sëy jubal na seen borom kët naata seen njaboot bu leen kenn naata la naata la soo bañ na ak taal dara jaay yenant bi wax dëgg yàlla de sant nañ de kontaan nañ gërëm nañ bokk yi gërëm ñi fi ñëw ñopp gërëm nañ leen gërëm nañ leen sant nañ gërëm nañ wax dëgg yàlla